loolu benn bi ma ci njëkk wax mooy Sénégal dañoo am internet te pare wuñ. am internet te pare wuñ benn mooy bi njëkk dañoo am internet te pare ñaar mooy éducation bi war ci nit ñi moo des mag ñi doon yar yaruwuñu xale yi yaruwuñu éducation bi war yaruwul tama li ma gëm te gëm ko te jàpp ko mooy li mën a yar doomu aadama dëgg dëgg dëgg daara kese la. loolu moom duma ko mës a rafetlu réseaux sociaux yi fi ne internet xaw ma Facebook ak Instagram ak Twitter ak xaw ma lan ak TikTok yàq nañ àddina bi saaga yu mitti lu nit ñemewul woon tey jii loolu tax na ñu ñeme ko. lu bon la ñàkk yar rek ñàkk yar éducation bi daal zéro ci xale yi léegi éducation bi zéro yaruñu seen doom yi yaruñu seen doom yi ndax xam nga ni si mi cër muy góor nag muy jigéen ak góor jigéen yi ci dëkk bi sonal ñu wit bari fi bay bëgg dee. loolu moom rafetlu ma ko te du ma ko mos a rafetlu. loolu moom du yoon quoi c'est humiliable ma loolu moom du yoon c'est pas normal parce que gars yi weccit moo leen sonal moo waral ñu jël seen cër di ko envoyé comme tey jii nit ne la dama lay may benn iPhone 7 léegi envoyé ma sa lii ñu def appel vidéo affaire te loolu amoon na bu yàgg quoi mais yeewul gars yi mais gars yi dañoo continuer ba léegi di ko def man dama yaakaar ne loolu buzz la moo waral ñu koy def quoi parce que loolu jot nañ si gis ay région quoi loolu noonu leer yàgg na fi mais gars yi dañoo continuer def. ñooñu moom li ma leen di dénk mooy. àdduna lépp li nga xam ne nii sutura la sutura lépp lu mu laru dara la lalu ko lépp lu su suturu raru dara raru ko ndax dafa daa am ñoo xam ne ay royuwaay lañ si àdduna daa am ay nit ñoo xam ne ay royuwaay lañ war a doon boo nen exemple mais moo tax xale yi nga xam ne nii mooy suñu njaboot yeeg kii dañoo war a xool loo xam ne nii lu baax la ñu ñu si roy mais yenn yi nga xam ne nii ñaaw la boo koy def rek ndaw yi bu ñu màggee rek lu la ñuy def mooy waral dëkk bi eh, xale yi nga gis nii nga xam ne nii ñoo mujjee juddu sax eh, ñooroom mag ñi yàq nañ seen bopp mais lépp ci parents yi la parents yi la war nañoo yaraat seen doom bu baax a baax a baax ndax ëllëg yomal xiyam nañ la laaj ana noo sàmmee woon si si seen njaboot. parce que tamit bu defee dara ak lu mu mënti mel ak nu mu mënti boo amee ab xam nga loo jomba def ak loo jomb ta def nit am lu muy jomb wax dëgg yàlla loolu mooy li nga xamante ne si mooy. est-ce que tamit bëgg bës jar na lool. man man ay bës moom wax dëgg yàlla intéressé wu ma. li ma mën a wax daal mooy c'est l'éducation qui manque enseigner le Sénégal dañuy enseigner mais on n'éduque pas ak aujourd'hui éduquer wuñ kenn aujourd'hui ñi nga seen les jeunes d'aujourd'hui ñëpp ñëpp ñëpp amuñu éducation de base amuñu éducation de l'école peut-être am nañu enseignement mais amuñu éducation xale yi nañ seet dellu ci yàlla tey jaamu yàlla te def lu yàlla santaane te bàyyi ay terem fi mu ne nii ku jaamu yàlla te perte nga dee amul xale amul mag de mag dina dee gone de bu njëkk da nga daan gis mag mu téeméeri at dee bala moo deet yàlla xam waaye yu bon yi ñuy def moo tax léegi ñaari fan ñett arméeri Yoff yi fi mu ne danoo noo suula suul ba fees na ndax seen yu bon yi def rek seen yu bon yi def dong nga tax nag waa nañ ko bàyyi te delloo seen bopp ci yàlla. mais nañ ba loolu xam nga parce que sutura daal mooy lépp xam nga nit ki da ngay suturaal sa bopp avant tout xam nga da suturaal sa bopp boo bëggee suñu borom suturaal la yéen daal xam nga man pour man pour man du ful la ak fayda parce que nit ki soo bëggee ñu teg la fenn da ngay am da ngay am respect si nit ñi xam nga respecté première fois nga respecté sa bopp. loolu dama yaakaar ne bës la quoi parce que loo xam ne da ngay gis ni mu leer la lii nii boo ko defee après lii moo la siy fekk nga continuer di ko def loolu ça veut dire grand loolu la. yaakaaroon lébi la gars yi dañ leen di fay. ah dañ leen di fay kay. loo xam tey jii nii dama lay jox lii nii ñu gëmloo ne comme tey jii soo defee appel vidéo soo ma wanee sa lii lay jox iPhone 8 wala iPhone X nga def ko pare du la def dara wala affaire bi si yow lay retourner quoi da lay chantage ne la. comme tey jii nii da lay screen vidéo ne la dinaa ko publier léegi yow yaa may jox lii ne ma publier ko affaire bi day retourner si yow quoi. mais mais question capturage boobu nan lay demee. mais gars dañuy capture vidéo de sa bopp ngay nëbb damay nëbb sama bopp. kese ko quoi. waaw damay kese sama bopp léegi yow yaay feeñ damay nëbb sama bopp quoi ne la instant fu ma nekk nii lii ak lii ak lii nëbb sama bopp après ma screen vidéo partager ko.